يا سيدي يا رسول الله شافعنا يوما ينادي

ذاك شأن أتى لليوم آلام ومربينا وهلكنا ومولانا خادم رضي الله تعالى عنه وارضاه وعنا به امين ورضي الله عن شيخنا التجاري ومن سنا اليه وسل الكاشف الامم اما تغلق بالازيان قابضه تب علينا الهي افر العسم فكل من طلبوا صالح دعوتنا وغيره من ذوي الجمال كله فاقبل الهي يا وأحيانا قومتنا بالفضل والجود والجوار والكرم فذا أصوله وأحلى بالأصول العموم علمه رب تعليما بذي الحكم ومن لنا محسن ومن نسئ له يا ربنا ربنا يا واسع رحمي قال في الإيصاء نظرة شميل نعوذ بالله من شر الكفار ومن شر النصارى ومن شر السلاطين ومن وزير وجن ثم بعقد فم وعين وحين وشياطين وظالم ومنافق وفي حسد ومن تفسق يا رحمن نجينا يا رحمن نجينا من النصارى ومن قفى طريقهم يا ربنا بالمجد والباء والذات والصفات الصفات والأسماء يا ربنا والأرض والسماء وما بها يا ملك الأشياء ألحق جماعتي بهؤلاء ملبسنا بكل الغفران وارحم جميعنا ووالدينا يا ربنا ربي ومسلمينا يا شيخنا يا أحمد التجاني ملجانا على الوصائل للرحمن ملجانا جملتنا في كل يوم بما بما نرجو ما كان بك صغصنا بما نرجو ما كان يا أولا يا آخرا يا ظاهرا نوّر بصائر عبدك المتظلل لا يقتلنا الله جل عجبنا كما وعدتنا يا ذا الجلال الكرام إنك لا تخلف الميعاد إنك لست تخلف الميعاد يا ربنا يسر لنا المراد من أرادنا بصلاة اللهم أحينا عليها وأمتنا عليها وبعثنا عليها واجعلنا من خيار أهلها يا رب العالمين أرادنا الله على دين النبي وحب شيخنا الإمام الطيب أرادنا الله على دين النبي وحب شيخنا الإمام له الأمان يوم لا أمان إلا لمن آمن بمولانا تقبل الله رب الناس دعوتنا مما نحب به بجاه ياسين بحق اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلقه والقادم لما سبقه ناصر الحق بالحق ونادي إلى صراطك المستقيم وعلى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 it fine. أشهد أن لا ak uuf njaboot ñaan gi tam kenn bi warul ci jiitu suñu sëriñ suñu yaakaar ndax maamam suñu yaakaar ñun ñii taal bi cher muy Chérif Mouhamadou Habib ak Tijani muy Sidi Ahmed Diop ak Sidi Mahmoud Diop comme ni ko Ousmane lii mu baax ba radiyallahu anhu doonee woon Chérif Mouhamadou Habib ñu ngi fii ci wetu am ne lu Pikine ci biir këram nekkoon mooy papa yi mooy waajuru Chérif Abdou Moutalib ak ah, ma mu njëkkee ñëw Sénégal Serigne Babacar taxawoon ko jënd fa sax taxaw jënd fa jënd fa dëkk euh, Lanzarote ya nekk ko jigéenam ak lan la sa buur soxnaam ñoom si bi ma lu ma si dina wax mu ko rek jënd na ko su jëndee ba rek jënd ak une deuxième vache jënd na waaw moom Chérif ma ko waral famille sama yaay moo nekkoon Lindaanam moo nekkoon Souga moom maam Bodi Fall ñoo ko doon toggal ñoo koy fóotal lu jiitu soxnaam bi jógee ay mois bi ak Algérie bi ñëw wax dëgg yàlla waaw ah waaw hakada hakada kon nag yéen fu ngeen teew rek suñu xel na ndax da ngeen liggéeyal surtout Cheikh Ahmed Tidiane bu dee bëccëg yéen a ngi woon ci service am du ngeen lekk du ngeen naan nekk ay jaam te ñun dañuy jaam dañuy sama papa dafa wax naan ñaanal ma rek ma doon jaamu Cheikh Ahmed Tidiane te bind na ko ci ay poème am ak ci ay woyam ak ci ay prose am ak suñu mbay ñu bokk turandu Bambam ñu tuddee ñu Cheikh Khadim Mansour Sy Seydou Kaw moom Cheikh Al Hadj Malick ñu ngi ñuy toog ñoom suñu maam yeeg suñu bàyyi dañu am na sax yaram yu nekk waaye ma ni euh, sa bàyyi Abdoulaye Fadane wax naan sëñ Mansour sax wax naan borom daara ndax a ngi ni ñëw ma dafa doon wax naan as bor warul luñ ko defee ko xileef ne ngaa koy gor ci kanamu yàlla waaye ñëpp koy jaam ci kanamu yàlla waaye ci suñu diggante ñun nit ñi en tant que doomu adama ñëpp bor lañu ñëpp ay mbokk lañu ay doomu baay lañu doomu ndey lañu muy góor jigéen ñi lëggan kii ñun kenn xamu ko yàlla rek ko xam yal yàlla nangu ñu te yàlla def jàmm ci gox bi def lu ci góor ñi jigéen ñi yokk mu xéewal ak wërsëg ak naataange sutura ak tarfe xajal leen xajal saafara jàngoro yi fay bor yi yàlla kër bay wéy yàlla yàlla bay kër waaw ak ay waruwaaye tool yu barkeel ak commerce bu barkeel ak euh, lépp lu di xeetu métier muy liggéey ci administration privé wala public ci gouvernement bi wala ci société yi xale yi jàng di ko dalee primaire ba université ñëpp yàlla def ci ñoom barke kon loolu daal dañu ñaanal suñu bopp moom la ñuy ñaanal ñëpp ñun nag amuñu xamuñu mënuñu dara te amuñu yàlla ñu néew doole la ñu di fakkiire lon ko ñi miskiine amuñu dara waaye ñun ñëpp dañuy àndandoo ak yéen rek mais bàcc yàlla suñuy loxo toroxlu ci kanamam mun ko ne suñuy jàmm suñuy jàmm say jàmm lañu ñu ngi nii ci sa kanam teew rek euh, li ma ala li ma di waxoon fa bay ne day mawlaaye ma ziltu waafiqan dalilan xaqiran mustabitan li shiddati man maa ngi nii di ala li ma di aw ma xaw ma mënuma gisuma dara lu ma mën a woteel sama bopp lu dul doon jàmm bu néew doole bu tëre bu xamalul boppam dara tey ëllëg waaye yaa ku la yaakaar doo tas yaakaar kon maa ku ma ñu ngi di raam ci sa kanam ci sa kanam gën suñu njébbal ak suñu aju ak suñu lépp ci sa wala ni yow rek yow rek fi yow rek yor yow rek am kon dana tax ñu sell dana tax ñu set dana tax ñu ñëw ëllëg yonente bi sallam uuf ñu njébbal ñu la ñu yàlla dimbali may ñu loolu ak ngeen bokk muy bu tijaan muy bu murit muy bu xaalis muy bu laayeen wala sax koo xam ne ci ba def ndax jullit rek fi dama sax itam rek yàlla moo ni wala xat karram bani aadama yàlla ko wax yàlla moo giiñ moo ci jëmm ju tedd ji ne teral aadama ak lu aadama kon diine sax nañu ko amaluhu ak ñu ni illa an yatagamman euh, illa an yatagammalahu Allahu bi rahmatihi kenn ci yéen du jëfam man mënul damoo jëfam ni ji mu yóbbu àjjana xanaa yàlla yërëm ko mbokk yi yëf yi jéem mën a yàlla la nekk ndax yàlla bëggul ku beew bay gis boppam naan maa ko yor di fëgg sa dënn nit ñi di jay nit ñi di la ba nga foog yaa yore dara te dara yàlla ko fi nekk moo yore dara moo tax maqaamul abdi zullun wa imtihaanun te zëllal kay du jaani sa yàlla bi seen maam alaaji maa ngi nee na maqaam ak jaam bu mu mën a doon ñu naan la sëriñ beeg ñu naan la buur beeg ñu naan la kilifa beeg ñu naan la euh, notable beeg dëgg la yooyu ay ndongo la yàlla sekk ak nit ki di ko ko sarax ci àdduna mooy lépp yàllaa ko yor nee nag maqaama jaam daal dara gënu ca tedd nga doon rek jaam bu yàlla nangul njaamam jaam boo xam ne yàlla nangul na sa njaam kon nag wàcceel sa bopp wàcceel sa bopp nooy nekk lewet suufee sa bopp soo defee yàlla euh, war la ni ko que jox nga ma sama kër ndax man rek maa maam yow mi wàcc ci suuf was jut waxtari was jut waxtari soo bëggee jege yàlla soo ko jegee rek mu yéegal soo su jotee rek ne ràpp sa jë ci suuf te moom gën a tedd ci sa jëmm ji mu nangul la yëkkati la waaye soo yëree soo yëkkatee sa bopp nag ngay dàq ka ngay biir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 yàlla nee na na ngeen di woo yàlla di ko tagg tagg yi nu gën a rëy tagg ya ngeen di tagg seen i baay ak seen i ndey ak seen i sëriñ ak seen i seen lépp jox yàlla te koy bàkk di ko tagg suba yi ak ngoon yi muy sikkar suba sikkar ngoon salaatu ala nabi suba salaatu ala nabi ngoon astaghfirullah suba astaghfirullah ngoon jàng alquran suba jàng alquran ndax ngoon yàlla nee na soo ko defee danaa wax samay malaaka ne kaay leen ñun ñëpp ma jox leen ndigal ñu wàcce xéewal ak barke ak teraanga ci sama ndigal ak sama coobare ci sama jaam yi nga xam ne jox na ma sama jiw te bés penc ko sax ci sa biir bàmmeel maa ngi jëlee ci lëndamaayu bàmmeel ak lëndamaayu àdduna ak lëndamaayu leneen yéegi la dugal ci sama leer jërëm dugal la ci àjjana bi gën a kon loolu rek la yàlla sant te moom la fekk mbooloo mbooloo ñu di ko def kay tax nag yàlla nangu ci suñu biir kenn xamu ko du man du keneen. moo tax dañu ni na nga seeyee ci biir mbooloo yàlla sa xoolee xool gis ni sax gisul ci biir mbooloo mi ku mu dana ni ah, man daal ëppante naa sama mbooloo mi di samay jaam di samay jaamaat ñëw ko ci sama kanam raam su sëgg jox ma seen jox ma seen nos jox ma seen kan jox ma seen lamiñ jox ma seen xol ak seen xel ba noppi ma leen di delloo ko loxoy ne du ma ko def du ma def lu yërëm leen yàlla ci yàlla dimbale yal na yàlla saafara jàngoro yi faj aajo yi wuññi njàqare yi teggi diis yi guddal fan yi bépp feebar bu mu mën a doon yal na ko yàlla saafara waaw luy waral gàtt fan yàlla nañ ci yàlla musal luy waral yàlla yokkal nit ba gën a yàlla nañ ci yàlla xiir ba defloo ñu ko moo xam sarax moo xam jokk mbokk la surtout jokk mbokk lu jokk mbokk incha allah mën nga yaakaar njott ni yàlla mën nga rafet njott ni yàlla dina la may fan bu dëgg la donte rek yàlla nee na maa bind dund waaye nee dana ma neex ma yokk dana ma neex ma wàññi dana ma neex ma yokk dana ma neex ma wàññi bokk na ci liy tax mooy wàññi dund sa mbokk toog sa mbokk ak tooñ nit yi nekk ci bi ñu di tooñ di reetaanaate di jëwaate nit ki di ko yéeg foog ñu yàgg kenn bokk na ci xuuf di dagg dund yàlla nee na wa laqad katabnaa fi zaburi min ba'di dikri anna al-arda yarithha ibadiya salihun inna fi hada la balaagan li qawmin abidina wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin yàlla nee na groupe boo gis génération boo gis mbooloo moo gis famille boo gis rek ak mbootaay ñi koy gën am sigare gën ci am ndam gën ci am barke gën ci am sutura am ca succès ak réussir mooy ñi nga xam ni dañu suufee nooy nekk ci jàmm nekk ci service yu te ku leen coow ñu baal la te duñu doon kenn waaw te lu ñu am mbokk boobu nit ñi loolu nag yàlla may wax Sénégal moom nekk yàlla ko yàlla saxal suñu xol loolu daal la ñu woon nañ ko wax waaye ñu jàng ñaan boobu euh, Fatiha salaatul Fatiha qul allahu ahad ihdaa ashara marratan ko benn suuratu euh, innaa anzalnaahu fii ñu ñaan yàlla euh, dañ ca yéene ci euh, jotal ko yeneen bi saa sallam ak ñi fi ñu ñëpp yàlla defal leen ko te itam yàlla def jàmm ci Sénégal def fi sutura def fi teraan def fi sécurité ak mucc waaw ba ci élection yi di ñëw yëpp yàlla yàlla seet ndox mu set ba benn natt du fi am benn léeg-léeg dafay am benn accident bu am benn incident bu am. benn musiba du am benn balaa du am yàlla yàlla tàppe ko ñu nekk ak rajo Jabi jula jërëjëf moom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 waaw sëriñ bi nee na mi ngi nuyu Adja am ay kàddu yu ñuy sànni rek ñaan bokk yëpp ñu xaj bi yetaay yu bari la bàyyi pour ñëw tegle ñu jëmum ci xadra bi لشيخ مرشد مبل الكمال أرى بالقلب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 bu ne Ceerno Muntaxa ak Ceerno Haamisu nañu leen tànnal boromi xam-xam ay xale yu yeew ñu toog ay fan di seet di xool yu ñu tànn leen pour ñu nekkal Sëriñ Mouhamadou Habib boobu naa sax ñoom Sëriñ Ali daanaka juddoo ji kon nag yàgg na mu ne bëggoon na ñëw ndaxte Sëriñ Mansour jaral na ko ak mbooloo mi jaral na ko. waaye tey xadaru jumaa bi loolu moo ko tënk waaye ngeen baal ko ak ah, waaye nag ñaanal leen yéen yëpp yàlla nangu lépp ñu ngi nuyu tamit suñu sëriñ suñu soppe muy ak sëriñ Mouhamadou Mansour dafa xaw a fàtte mais nekkoon nañu Kermel ba mu nekkee Kermel damay bokk xaal pla yi di ko yërëm ñu ne ma su daal moo sonn ndax ku mu romb da lay bëgg nuyu te su la nuyoo su fàttee sa sant day rus te loolu ña xam xamaloon ñëpp koo def loolu moo ko sonnal ma ne mooy seen jikko maama ba muy tagg Seydina Muhammad imma abidun wa sibyaanun yusallimuhum mumaazihun gayru haqqin maa ilayhim yonent bi rek la ñuy la ñuy la ñuy roy kon ñu lay nuyu ci turu xalifa bi kontaan nañu trop nag ngeen baal damay faral di wax ma soo soppee nit ba mu ëpp da koy takkal garaal bu mu amal waaye soo bañee nit ba mu ëpp tamit lañ ko takkal da ngay bëgg mu teppeeku doo ko yéene. waaye su fekkee dañoo dañoo bàyyi suñu sopeel ñu bàyyi suñu mbañeel ñu njiital ak adaala ñu njiital la mun a nekk sa bàyyi amul morom boo ko tëkkalee rek par moo la da ngaa par ci wàllu jikko ci wàllu gore dama ne Alaaji Maalik Si radiyallaahu anhu am na ñoo ko mag ci ay doom am na ñoo ko mag ci ay taalibe waaye gisuma amul kooku gën a gore ngeen baal ma xel yaa baax bàyyi si ma si mu ne sëñ Mouhamadul Habib jazakumullahu xayran wa wuqiitum sarran wala laqitum ma bakin durran asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وخلفائه ذوي الفضل والمكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صدقت صدق يا Amin, amin, amin. di sant yàlla bu moom mi nga xam ne moo ñu mayoon ñu teewu fi daaw ñu ñaanoon ko euh, kon alhamdulilahi rabbil alamin ah xam naa su fekkoonte damay roy kese suñu baay bu baax ba di suñu sëriñ di Cheikh Alhaji Abdoul Aziz Alhaji Abdoul Aziz Sy Dabakh damay jiital ci nuyoo bi bokk yu baax yi nga xam ne ñoo jóge ci kër Cheikh Ahmad Tidiane ji nekk fii ci Pikine te Serigne Abdoul Moutalib yabal leen bi ñu ngi leen di nuyu di leen dalal jàmm di leen yóbbante suñu jant ci sang bu tedd boobu leen fi yabal eh, di ko wax ne mel na jëmmam moo fi teew wa tabarakallah yàlla yàlla fay leen ñu ngi nuyu suñu sëriñ suñu soppe suñu turaloo di sëriñ Mouhamadul Mansour Sy Dabakh di ko sant bu baax a baax a baax ci teewaayam damay wax toujours ne sax léeg-léeg ñu ñeewante leen lool ndax coono yi ak charge bu wante lu ñu leen ñeewante ñeewante yi tam lu tere saa su nekk dañu ko ñu teew ci suñu biir ndax loolu dafay dalal suñu xel ñun taalibe yi xam nañu sax yaram moom diis na te fii mu nekk nii Tivaouane la jóge tey di wër si fii ci bërëb dañ ko jëlee ci sa waajur gën a laaj seen xel gën a laaj seen xalaat gën a ñeme jotaay te itam nag li fi jeexagul nañu toog déglu nga Moussa ah juróom ñaar yàlla juróom ñett waaw Faatiha la woon mu ne Faatiha benn yoon salaatul faatih ñetti yoon yàlla biif juróom-ñeenti yoon salaatul faatih mujj yal na yàlla def barke ci mbooloo mi ci ñi jiitu ñi ak suñu sëriñ doomu suñu sëriñ yal na may wér yal guddal fan gi lool di jiite jàmm rek la ñuy am kon li leen di tegtal bi ngeen di wax ni la ngeen di wax taalibe yi njëriñ la ci àdduna njëriñ la ci àllaaxira kon nag yàlla nañ yàlla may njëriñ bi ñu ngi ñu ngi ñu ngi sant sëñ Mansour bu baax ci taxawaayam ak lii mu kër mu ne mbaax mi yëpp ak julli nañu daje yëpp daanaka moom mooy sabab bi kon yal na yàlla gudd la sa fan yooyu sëñ Mansour Faatiha benn yoon salaat faatiha ñett yoon yàlla def juróom-ñeent